Euh, def jàngat individuellement ñoom ñaar lan moo war a doon seen taxawaay mais actuellement le duo Ousmane Sonko ba Bassirou Diomaye lan moo war a doon taxawaay bi. waaw mais euh, vous savez que c'est deux li may wax ni c'est deux faces d'une même monnaie. Mmh. mais est que yow sa dix mille francs soo ko amee di nga xëy ni man benn face bi dama koy dindi euh, est-ce que maak yow bis bu nu bokkee dix mille francs. Mm-hmm. est-ce que mën nga jël benn face bi man ma jël beneen face bi ku ci nekk dem ak sa face. déedéet ce sont les deux faces d'une même monnaie ñoom ñaar mënuñoo mënuñoo taqalikoo. Mm-hmm. xam nga lu tax. Mm-hmm. Euh, yàllaa ko bindee noonu yàllaa bindee noonu situation bi c'est Dieu qui déroule. li ma doon wax naan yàlla du Diomaye Faye le président Bassirou Diomaye. ci dernière minute yi la nit ñi xam ne mooy jël pouvoir bi ñëpp Sonko lañ ko prévoiroon mais yàlla prévoiroon loolu. Mm-hmm. tu sais que y a des a des yu war a am ci réew mi y a des réformes majeures te Ousmane Sonko yàlla da koo préparé. Mm-hmm. gis nga lii xew nii <laughs> man dinaay wax ni euh, Bassirou Diomaye su fekkee ni xam na li xew gaa du ma du ma ma dugg ci détail ñoom ñaar xamante nanu ya xam ñoom ba ñuy xamante man. booba kenn xamuma damay mm-hmm. dégg donc ñoom ñaar ils seront euh, dinañu xam parce que dañoo defar un projet mm-hmm. gis nga euh, le projet la bi Ousmane ko teg il paraît que sax il paraît que dans les vidéos yi mu enregistré euh, defoon na ci enregistrement bi nii bis bu bakkanam rotee mm-hmm. na ko diw jël comme man ni ma leen doon waxee ni leen yonent bi bi muy yónnee ci benn xare muy xare Muqta ñetti généro la ñetti généro moom la tabb dafa ne bon Abdullah ibn Rawafa soo daanoo mhm. euh, euh, nga jox ko Zeyd ibn Harisa mhm. Zeyd ibn Harisa euh, soo daanoo nga jox ko Jaafar ibn Abi Talib mhm. mais gis nga guerre boobu ñetti généraux yooyu kenn dellusi si wu ci ku ci daanu sa moroom jël drapo bi dem am na vidéo bu ma fi waxoon ni Ousmane na ko jàppe noonu le projet projet bi fi mu toll nii man am na mouvement boo xam ne yëkkati naa ko xaw ma ndax euh, da ngay bokkam deet mhm. xam nga na la mouvement bi tudd hmm. la mouvement bon EPS euh, mouvement bi mi ngi tudd bon MC up 2050 horizon 2050 man je suis ñaan naa sama borom mu bàyyi ma ak Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye fay ak le professeur Cheikh Omar Diagne fii ba vingt cinq ans incha allah mhm. c'est le projet projet bu Ousmane Sonko tëgg. wéet ak Bassirou Diomaye bind projet bi. li ci Ousmane Sonko bind ba prévoir ko su deewee sax projet bi xam na nu ku koy yeggale. vidéo yooyu est-ce que su génnoon est-ce que su ñaanuñu ko woon yàlla su ci bakkanam desoon est-ce que du Diomaye yay yay continuer. Diomaye sa bu paree Ousmane paree am na keneen kuy continuer parce que waaye man de su Sonko paree. professeur Cheikh Amar Diagne mooy sama waay moom laa àndal mais moom xamal naa ko ko dès maintenant nee naa ko après Diomaye c'est Ousmane Sonko après Ousmane Sonko je prierai pour que tu sois le septième président de la République mais le sixième président de la République c'est Ousmane Sonko incha allah ni ni Bassirou Diomaye ñun ni ñu ko ñaanee suñu borom mu dogal ko te azal dama ni mhm. dama ni danga may laaj position Ousmane Sonko ñoom ñaar ils sont interchangeables ñu ngi si ñoom ñaar ñoom ñaar dama lay wax ni la pour deux mille pour deux mille cinquante vingt cinq ans yi ma lay wax nii. Mhm. dinaa expliquer li ma ci bëgg a wax nii yëpp. lu tax Cheikh Omar Diagne mujjantal man waxuma sax ay waxam mais dinaa ko ci njàmbaas parce que am na ci man solo. Mhm. mais Bassirou Diomaye ak Ousmane Sonko jamono jii Ousmane Sonko laa leen ni nguur gi nguuram la. <laughs> vidéo bi vaar bi. Mhm. dem leen ci sama vaar yi neewoon naa leen il faut que mu am. keneen ku ko jëlale nguur gi jox ko mu liggéey réew mi. Mhm. mais Bassirou Diomaye mooy def le travail de terrain. te gis nga saa waay euh, dinaa la wax benn mbir tu sais que jour jour anniversaire u Diomaye le vingt cinq. mars mars est-ce que tu sais ce qui s'est lunaire yëgoo ko. yëguma ko éclipse lunaire am na le vingt cinq mars deux mille vingt quatre bi Diomaye di jël réew mi weer wi téye nañ ko mun. tey nañu weer wi am na benn moment weer wi jotul lumière. en tout cas mu ngi doon taw daal taw na taw bu rëy ci. loolu moom. Mhm. Euh, loolu moom euh, ba léegi dafa dugg ci wit bi lii laa fi xale si nii. danoo toll ci kii waay may bu ma tax a duggaat ci baatin waay. waaw duggal ci baatin waay. <laughs> taw boobu baatin la de grand. <laughs> Euh, non ma de mhm. mars muy taw. Mhm. kooku moom même ñu amul baatin sax xam na ni baatin la. wallaahi mais mais grand barki mais mais ah sa waay réew mi yàllaay borom borom réew mi. Mhm. mais am na ñu mu ko tarale mais léegi nag Ousmane Sonko taxawaayam. Ousmane Sonko cheikhul xadim billaahi wal kitaabi cheikhul xadim laa gis muy tey ci loxo Sall loxo Macky muy wàcc te ñi ngi sant yàlla Basiru Jomaay Masamba tegu mindeef tegu ko fi mindeef tegu ko fi yàlla moo ko fi teg def na campagne am wër Sénégal yépp te jàddul ci benn saalu sëriñ fii ci Sénégal mhm. fu mu toogoon tàllale loxoom ñu génn ni ñoo ko ñaanal ku ko mhm. ñaanal ku dul yàlla mhm. dëgg la yàllaa ko fi teg léegi nag moom am na départ de xoolal am na départ de départ bi mu am mooy leer na ñépp ni yàlla tawal na ko taw bu sedd teg na ko fi te benn sëriñ tàllalu ko loxo kaso a génn dem pale Mhm. comme yonent yàlla Yusufa benn sëriñ benn artiste benn. amul lobby bu nekk gannaawam grand Bassirou euh, gannaawam il a boulevard la am fi mu toll nii. Mhm. sa saa bu nu réussirul c'est de leur faute. Mhm. te nag saa waay li tax ma ñëwaat. wax ni nanu taxaw éclipse lunaire moo amoon te ñeen sax internet ci xamu leen ko Sénégal. seetluwuñ ko jomaay bi muy jël réew mi. ci guddi gi ci fajar gi téye nanu weer wi éclipse lunaire am na. weer wi weer wi tëye nañ ko ab diir loolu nag dafay feeñ ci gouvernance am mhm. bëgguma woon sax duggaat ci baatin yaa ma ciy dugal mhm. loolu laa bëgg nag waa Pastef fi xam li xew réalité de terrain bi grand mhm. dinañu am benn moment de mooy rupture yooyu may wax euh, y aura des pénuries du yàgg na ñëpp taxaw gérer loolu nouveau gouvernant yi su fekkee ni pénurie yooyu dañ koy nar a causer c'est Mhm. Macky Sall il a saboté ce pays financièrement économiquement il a mis ce pays à genoux seize mille milliards. Mhm. lépp fépp mais lépp ñëpp a ko mën yow mën nga ko eh lépp ñëpp a ko mën waay. Mhm. te et puis yow da ngaa turu Sénégal mag ñi ñëpp liggéey réew mi Abdoulaye Wade bàyyi ko réew mu taxaw. Euh, mais mais mu jël saa waay notoriété euh, la bonne facture de sa pays là banque bu mu dem dañ koy lebal seize milliards. Mhm. seize mille milliards xoolal hypothèque na réew mi léegi nag Diomaye Faye il faut que tout le monde l'accompagne. Mhm. Macky Sall la ki see Macky Sall la ki manœuvre ma ki ak ay seeni lobby Amadou Ba man waxoon naa ko fii Amadou Ba PDS man bi may wax PDS xam nga ne woon naa leen les instances ne se sont pas prononcées. Mhm. Karim Wade dugg si bi mu dugg man damay sant yàlla te kooku kaawu Karim dinañ ci dugg ci kanam. mais ñi ngi ci Jomaay ak Ousmane Sonko euh, Ousmane Sonko mënu la mënu la am poste. ci gouvernement bi su ko defee rek ma xam ni. loolu damay ñu dama ciy ñëw. non mais parce que non xaaral ma développé la moo tax ma ciy ñëw. waaw on nous souvent du du du nouveau gouvernement. Hmm. du président Diomaye. da ngay gis ñu bëri sénégalais naan diw pour nangam. Hmm. diw pour nangam diw poste sangam euh, diw na na jël poste sangam dem nañ ci dégg naa sax ñu ne. Euh, Mody Seck ministre des ministre du du du mysticisme non fi mu toll nii xam nga lu tax fi ma nekk non non fi ma nekk balaa ñuy dugg ci nouveau gouvernement nanu nanu vidé Ousmane Sonko. waaw ah, parce que seen relation ñoom ñaar laa bëgg mu moo naroon a nekk sama question. ban taxawaay wala ban post la Ousmane Sonko war a occupé ci gouvernement boobu. moom laa lay bëgg a wax nii nii la man li ma gis. Mhm. li ma gis de Ousmane na xam bu baax position am. Mhm. boobu ba léegi mi ngi doxal nag. ñàkkul nii ñàkkul ni mais man sama sama gis-gis ak sama xam-xam bu ma ko ci. Mhm. est-ce que xam nga gilet pare-balle ci nit lu muy jariñ. mooy tax ba pistolet du. bal du yegg si bal du yegg si. Diomaye Faye Ousmane Sonko mooy gilet pare-balle est-ce que gilet pare-balle soo ko solee yow di nga ko gis. kenn du ko gis. Ousmane Sonko dafa war a xolal dafa war a dugg ci mbubu Ousmane dafa war a dugg ci mbubbu Diomaye fay nekk gilet pare-balle kenn du ko gis waaye xolal. fu jomaay di toog Ousmane a ngi ci biiram fu muy dem Ousmane lay àndal juré par balle kenn du ko gis mais xolal voile ci gannaaw rideau bi lay nekk mbubb wi juré parbal lay doon mooy nar a doon réceptacle choc yi euh, jomaay nar a recevoir yépp Ousmane mooy nara a doon waxuma garde corps mais gilet pare-balle ni ci biir du taqalikook moom guddi du taqalikook moom bëccëg te gis nga ñoom ñaar peut-être euh, mënu ñu ko am nii léegi. Mm-hmm. peut-être en 2029 ñu ngi koy prévoir man euh, la poste de vice présidence ak poste de premier ministre nañ ci pare ba pare après ñu wax ci ay waxu gouvernement. Mm-hmm. wax poste de vice présidence boobu ñu wax lu ko dana pertinent amul. Mm-hmm. parce que man mois euh, moi di dis que ni Ousmane mënu la jël position ouverte. ci gestion bi war a aspirer à des euh, échéances électorales futures mhm. parce que mitam laay bañ mu kasewu Ousmane Sonko dafa am mit bu ne ci moom mit bi mooy maanaam euh, bis bu jomay demee parce que nag euh, gouverner ce pays y aura des revendications syndicalistes mmh. euh, une demande sociale bu doy waar su taxawee ci su taxawee ci kanamu Jomaay demande bi yëpp su taxawee ci kanamu Jomaay Ousmane nekk ci wetam ñoom ñaar ñu nekk en bivalence une certaine bivalence. Mm-hmm. soo ne Jomaay ni Ousmane jafe-jafe mandat bi yëpp Ousmane da ciy am. Euh, benn comptabilité bu mu ci war a rendre. Mhm. te loolu mën na entacher may échéance future am. Mhm. li mu mën a defal euh, Diomaye mooy nekk loo xam ni euh, un modérateur. bouclier. modéra bouclier modérateur rus gin ko rus. Mhm. bis bu Diomaye demee ba mënatul dem. taxaw Ousmane su génnee rek gars yi dinañ ko ruse Ousmane. mën na ne ah gars yi réalité bii fi nekk et il communique mieux que Diomaye mhm. yaa may dégg mhm. il peut s'effacer communication du bari heure bu soxlaa wax ak réew mi rek mu génn wax ak nit ñi nit ñi dal mhm. Ousmane loolu la ko yàlla may te su ko utiliser trop rek bis bu ci abuser rek mën na ko teel a ñàkk te affaire bi il y a l'usure du pouvoir gis nga yet yee xeer yi ci kanam mën naa génn de ah, mën naa génn nag léegi yow il faut que te te comme que Ousmane nit ñi rus nañ ko bàyyi nañ ko xel te wax ko tu dëgg la lu mu ñu wax ñu gëm ko. Mhm. dina dem ba mu metti jaaxle Diomaye réew mi kii mais mën na Ousmane génn ni no man le président Diomaye waxtaan nañ gis naa ne léeg lii expliqué mu leer bopp nit ñi mu demaat ci rokkam toog. Mhm. tout en étant tout proche de Diomaye nekk ci biir nag xam lépp. di mhm. doxal bu baax. nekk maire Ziguinchor. di doxal bu baax xam lépp. Mhm. mais bu mu affiché wu. Mhm. na replié wu nekk nekk pour ma pour man damay bëgg di répété wu ma koy mhm. reproché. bouclier non nekk genre gilet pare-balles na ci biir chemise bi kenn du ko gis mais choc bu ñëw mu recevoir ko. nga xam ne Diomaye personne ne pourra l'atteindre. mais gars yi ñu doxal léegi suñu doxalee. yàlla may ñu ñu doxal ba deux vingt neuf. poste de vice président bi lu ko dana pertinent amul dina mën a régler euh, dina a régler le problème de l' article 36 bi ñu fi amoon vacance du pouvoir Macky su démissionné kuy jël pouvoir bi assemblée nationale coow loolu amoon xamuñu ko. Mm-hmm. Mm-hmm. vide juridique bi ñu fi naroon am noonu avec le poste de vice président. Mmh. la vacance du pouvoir est assurée. Mmh. pour de bon ñu xam ne léegi président bu fi jógee vice président bi mooy nar a jël. mais nag mm-hmm. y a des nañ ko encadré avec li ma fi doon wax avec. Euh, euh, mbir mi amoon aux États-Unis mhm. foofu am na fa benn faille dans leur système mhm. poste de vice-présidence Lyndon Johnson xam na ni xamoon na ni su rayee John Fitzgerald Kennedy mooy toog il l'a tué rapport yi 2029 lay génn mhm. l'enquête te mu te ñoom ñëpp ciblé nañu ni c'était Lyndon Johnson donc pour ne pas instaurer un poste de vice-président ici au Sénégal dans l'avenir ñu nara a amaat euh, le schéma bi am États-Unis kooku nañ ko prévoir te le poste de vice président ci boppam day dimbali président xam nga ci lan contrôle continue mhm. le président mënul nekk président di war a recevoir la chancellerie di di war a doxal lépp ci réew mi. di war a mhm. doxal sécurité. Mhm. nekk l'alpha et l'oméga. bëgg di coordonner chantier yi ci terrain bi. di xool ministre de l'agriculture. ndax les engins tracteurs yi yegg na. kooku un vice président mooy mën a chefe ministre yi. duñ ko ñeme. ñu mhm. xam ne décision bu mu jël moom. Mhm. day nekk genre une autorité day nekk une autorité à effet immédiat décision bu mu jël day doon autorité effet immédiat nga xam ne léegi le président ci boppam mën na indi sax des réaménagements su fekkee ni le vice président jël na. jël na nan ko encadré daal. Mhm. su fekkee vice président bi dafa abusé ci ay pouvoir am. ak ministre. le président mën a ñëw euh, arbitrer quoi nga xam ne léegi post de vice président dina soulager président bi ci lu bari. réew mi dox danoo soxla vitesse. waaw fast track waaw le de premier ministre. Mhm. li muy nar a soxla mooy interaction gouvernementale il faut mu am un premier ministre buy coordonner. Mhm. ministères yi. des fois ministre euh, de l'enseignement supérieur euh, supérieur. dina soxla euh, ministre de l'équipement pour mu yeggaleel ko ay salle de classe am. Mhm, mhm. léegi su bëggee interpeller moroomu ministre am mën na ko xaw a biaisé mais là un premier ministre peut coordonner les actions intergouvernementales le premier ministre de coordonner euh, le le vice président du superviser di contrôler pour le compte du président de la République mu nekk au-dessus de la mêlée. Mhm. man daal loolu laa gis entre relation Ousmane Sonko ak euh, Diomaye d'ici mais ñi naan ñi naan Ousmane Sonko da ko war a bàyyi am ñu naan non dañoo bëgg a isoler Sonko comme ça ñu accaparer wu Bassirou def loo ko lu leen neex. non non déedéet loolu ñu koy wax. ñoo xamul mais est-ce qu'on peut isoler Bassirou mais nag bon Ousmane Sonko pour la pour la première sortie bi mu def nii génn ak Diomaye dem palais baax na. Mhm. pour pour les beaux yeux du monde ñu xam ni. Euh, Macky Sall et Ousmane Sonko se une accolade c'est mais à de là mhm. euh, Ousmane Sonko je sais qu'il va se retirer et laisser le président de la République élu mhm. Mhm. qui est euh, Bassirou Diomaye Faye doxal te nag Ousmane Sonko na dem na dem lijjanti ji partem bi lu am solo la partem bi pacification ñëpp a ngi bàbbeeku di ñëw bu mu rejeté kenn militant bu ñëw demal ca gannaaw rang bi rang bi xoolal ran bi soo ñëwee di rang. Mhm. xoolal man sax man sax ful lay am naa ko su ma dee rang banque wala wala feneen. boo dépassé rang ma ne toppal ca gannaaw. soo ñëwee ay mbubb ak yooyu kay man la demal ca gannaaw. Mhm. militant yi ay responsable sax suñu ñëwee nanu dem ran yi. Mhm. fi faire la queue. suñ ko defee massifier seen parti comme ça au moins bu ñu soxla nag benn leader ci coalition. ay ñëw naa damay indi gis nga élection législative yi de grâce. bu nu def sax nanu réviser sax maanaam raw gàddu bi baaxul parce que raw gàddu bi mooy pousser nit ñi ñuy def euh, ay coalition de parti mhm. da ngay gis koo xam ne amul dara ci nit ñëw rek ñi man sama parti laa indi ñu jox ko ay quota député bu raw gàddu bi sax nañ ko réviser ku si nekk ñu yóbbu la ci sa base sa département nga gañe ko ñëw yaa may dégg mhm. liste nationale bi bu ko xoolal liste national bi nañ ko jox benn parti mhm. nan ko jox benn parti euh, boo xam ne moo gagné mu gouverner réew mi. Mhm. ay coalition de parti interminable ku si nekk di indi quota tardé réew mi. Mhm. waa Pastef on leur fait confiance Ousmane kese mën na doxal réew mi sax waay. mais mais am na benn phénomène bu ñu tàmm di gis à chaque fois ba nguur bu am. Mhm.